adversaire bi di nuyu waa Pikine ak waa Rebeuss yi ma àndal ñu ñëw supporté ma père comme nu koy waxee rek adversaire bi xam naa ko ñu ngi jëm ci bis soreetul ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah ci barke Cheikh Moussa Sall. Alaaji Malick ndax yaakaar nga ni combat bi war na xeex de. Haj Bekay combat bi xeex mënu cee ñàkk. ah. ñaar ñii foog ñu xeex. foog ñu xeex mënta ñàkk lakk foog ñu xeex. booboo bi ah. xam ji kay gars yi bu ñu fi ñëwee kay ñëpp ku ñëw seetaan si lamb ji da ngay bëgg mu am xeex bu bëgg mu am xeex bu saf saf bu saf. moom xam nga dina xeex sax mu ko sax. booy ñaar. maa ngi jaaree sama papa moo faram. eh eh. yéen damaa bëgg ngeen déglu ma bu leen ma forto maa ngi jaale suñu papa eh, suñu kilifa ma seen morom. ayca maa ngi jaale suñu papa. waaw Mor Faram. waaw maa ngi jaale waa Guèye waaye di jaale njabootam yëpp. ñu ngi fekk ci combat sax mais sinon dañuy ñëw ba foofu jaale si ko. ñu koy jaare bu baax combat bi dina am xeex dina am bëre. day dépendre ci adversaire bi rek. combat bi ñëpp ñu ngi koy xaar. te combat bu neex la. suñu frère tëgg ko muy Baye Ndiaye. bu jour ba yow la ñëw def flag fine ak job rek maa ngi moom allah. xeex bi dina arrangé baax na ci yow. non man xale laa lépp arrangé na ma. man bu sekkee dara bu bàyyi du ma bàyyi Orange Bécaye li tax man la ñaar ñi mënuñu bañ a xeex kii dañ ko dàkkantale la puncheur du Waalo ndax xeex bu nga xam ne da koo samp ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko ci kii tey bu nekkul woon mbëru làmb koy def ko magee ni ko jiitoo ci làmb da ngay ñëw ci làmb ñu ngi wax xeex mais donc man li ma a seet mooy lakk danaan xeex yi après mu bàyyi ba ñu bëri parce que dafa mel ni day naxaar dafa gëj a pëcc waaw benn bi gars yi. waaw ñu ko koy xool s'il vous plaît tëgg mi waay bàyyi leen ko ñu déglu waay ngeen bëggee mu neex man gënu leen maa doonu maa leen dàq tëgg foofu damaa bëgg ngeen ni rek waaw ayca nag kon benn kan waaw defe naa ci samay morom bëri samay mag samay rakk def naa laa bëri bu waaw loolu loolu naa bëgg dooma ci bëri ku la gën a nekk xale bëri ku la ci bëri ma ko nekk xale. bu ko njëkk a bëri rek loolu rek la. mais Mago. ah Mago. waaye. Père Bécaye kii kii ku xool jaalam bi ku xool jaalam bii la ala wax ne ñun suñu baax la ku xool jaalam bi nekk ci gémmiñam ji li muy nëbba ñu dóor ko ah nga ne kii du xale. waaye gars yi dañoo xamul rek. waaw loo bëgg ci jaal bi da nga ko bëgg a yokk. kon jaal bi non jaal bi kenn du ko yokk. dañuy bëri daan rek incha allah bu neexee yàlla suñu booy ñaar. mais su ma fàttalikoo su ma fàttalikoo la dëgër ba muy nekk ci làmb ba ñu xam ko ñu naan la dëgër numéro 2 su ma boo boobu ma fekk man lii na caare maa ngi jàng waaw kon moo ma mag ci làmb moo jiitu loolu mu nangu ko ak mu bañ ko ñëpp xam nañ ni moo ma ci làmb moo jiitu waaye nag dañoo nekk ay xale liggéey def fulla ak fayda ak jom ba mu egg ci moom te ci loolu la ñuy continuer. dama koy wax chaque jour te loolu sama ambition personnelle la làmb moo ñu boole ñu war a bëre waaye yàlla xam na ni sama ambition personnelle du pour kii li laay walaay te li may wax dëgg nag donc kii da laa bëgg a jékki te dafa dugg kii ñëwee am lu mu fa def. waaw ah, béykat na ngeen doon bàyyi leen ni kii dafa bëgg jéggi. moom la wax moom la wax ci kàttu ñaar du jéggi moom xam nañ du jéggi du jéggi dañuy wax ne waaye du jéggi. mooy ñaar ci kàttu nu yàlla noonu de. bu fekkee yàlla lu may di diw ko. ci kàttu nu yàlla buuse bi fan fan nga ko teg dégg nga lu ma wax man lépp lu may wax. ba tëdd du ma ci ginnaaw yàlla. fan nga yàlla yow doo yëg yow ba jour ba. incha allah bu jour ba di xam ba xam damay dem wala du dem incha allah. ci kàttanu yàlla doo gis ne. ok adversaire bu nekk am nga ko. mais est am nga conscience que adversaire bu technique adversaire bu tactique adversaire bu naqaree bëreel ngay bëreel. waaw benn temps loolu kii dama ko yàgg saan du léegi laa ko saan dégg nga ma la dama ne la premier combat ba dernier combat ba kii Serigne Babacar Sy xam naa lu muy bëri la. un peu de respect waaye un peu de respect nañ leen yi maa yow. am na qualité yu mu la mën a jégee dem yoonam comme ni ko père Bécaye waxee. mbër bu nekk mu jëlee sa avance am na qualité bu mu la daanee mais dégg ma la qualité bu mu mënti am damay dajale lépp fàtt ko kii du am dara ci kàttanu yàlla. dox na booy ñëw booy ñëw adversaire bu nekk am nga ko mais adversaire bu gën a naqaree bëreel ci làmb ji ñëpp nee nañu moom nga am parce que amagul mbër bu ko daan ba toog ci kaw xam nga man dafa am loo xam ne dama ko bëgg ci combat te yàlla dafa def dama ko gis ci combat bi ma dama nekk xale waaye dama bëgg dama bëgg combat yoo xam ne dañuy wax Boy Niang mënul def lii wala Boy Niang mënulul kii dara wala boo Niang ki muy bëreel moo gën a nakkaree bëreel wala Boy Niang am na client dama bëgg loolu ci combat parce que day tax ma liggéey def fulaak fayda jot te foofu laa jóge ba yegg fii nii te loolu dama ko dégg ci combat bi dégg naa ni gars yi foofu gànn gànn benn gànn benn gànn benn gànn pour mu neex yaa ngi dégg bàyyi gars yi tëgg mais il faut ñu tëgg loolu de dégg nga bàyyi gars yi ñu tëgg garaam yaa ngi waxtaan tuuti kanam. géwél géwél géwél. géwél daawul yàq. mais gàll. géwél moo daan defar. mais béykat yi géwél yi ñëpp lañ faral dañuy génn. géwél yi ah. daawul yàq géwél moo daan defar. te démb ba tey géwél lay defar. bu leen yàq. ay. da ngay dégg benn. waaw booy fi nga nekkoon neex na lool. waaw man man waxtaan bi waaw. damaa bëgg ci bis loo xamante ni. dafa dañu la booy ñaa mënul lii. wala booy ñaa xanaa dafa dof lu muy wut ci lii. loolu day tax ma liggéey def fulaak fayda ak jom boo xoolee sama combat yëpp noonu la demee ba ma yegg fii kii nag a la damaa dégg ñu ne kenn daanagu ko maa ngi nuyu sama mag amal seen daan na ko mais nee na daanaguñ ko jëlee bu leer. non ma seen daan na. daan na ko champion maa ngi koy nuyu sama mag damaa bëgg incha allah le treize man ak moom bu ñu bëree ba pare ñu xam ni boo ñaar champion dëgg la incha allah. loolu daa ko bëgg a def biir géej incha allah. Ah. est ni nga daan liggéeyee ci yeneen combat yi nga liggéeyee wala bii dafa am une préparation assez spécifique ndax dayoo bi combat bi am ci yow. su ma la naxul su ma la waxee dëgg yàlla xam na ni li ma liggéeyee ci bis bii mosuma ko liggéey su ma la waxee dëgg incha parce que loolu nag bëgg bis rek moo ko waral xam nga wàcc dafa neex supporters yi foofu ñu wax waaye dafa neex la fekk bis bi man ak kii rek ñooy ci géew incha ñu ne ñu ne pourquoi Japon waaw loolu Japon dañoo bëggoon xool rek ay xale lañu boo déggee xale da ngay dem xool rek yokk fi expérience ay xale lañu demul Japon yokk fi expérience mais liggéey bi def nañ ko yow yeggali ñu toll nii wax amatul daal dañ def fulaak fayda ak jom parce que ñëpp ñu déglu incha allah. booy yaa dama dégg nga ni da nga yor sa booli fonde waa géej waaye ku ñëw di ko yàqal te yàq bi day dem kër la dëgg. non te waxuma loolu. <laughs> waxuma loolu. loo wax si waa Guédiawaye nag. Guédiawaye amul lu may wax si ñoom. laa moom moo boole ak ñoom comme li may wax du ma changer communication ci loolu. laa moom moo ma boole ak ñoom samay adversaire nekk foofu. ñu ñëpp ay frère la ñoo bokk ndeg baax su ma bëree ñoom ba pare jeex na comme ni ma koy waxee bu jeexee jeex na laa moom moo ñu boole man ak Lac de Guiers moo dëgg. ñu bëree def fulla ak fayda ak jom bu jeexee ñu dem xool leneen mais Guédiawaye amul benn problème ak ñoom. alors ce que am na. aussi préparation bu spécifique boo def jëmale ko ci combat bi ndax Boy Niang dangereux bu mu ci yow. waaw xam nga lamb ak mbër bu nekk ni ngay préparé mbër bi. dina mën a la combat bii bokk na ci combat bu nii bokk na ci combat ko waral. parce que loolu ko mën a wax après combat. dinaa la ko damaa fonk combat bi. Bertando euh, euh, lamb combat bi ci li nga xam ne dañoo ci kàttanu yàlla incha allah dañuy xëy. mais mais dama ci liggéey man. man lan lan particularité bi am ci loolu la du ko def. xaaral ma ñëw xaaral ma la combat dama ko préparé ay coach wër ma entraînement ci plan yëpp. barke yonent bi ci entraîné ba feebar. waaye bi moo mais nag am na loo xamante ni duñ ko mu jëm kaw mais gis nga combat bii nii ku yaakaar ne dama ci nelaw benn centimètre benn centimètre wala moom dafa yaakaar dinaa ko ci may benn bu ndaw mu ngi wax dëgg. combat bi laa gën a fonk laa sama carrière. waaw combat yi nga mos am yëpp. déggoo ma combat yi ma am yëpp. combat bi laa gën a fonk. da bëgg ay nitam xam loolu ne combat bi dama ko jël au cœur. ñoom jaruñu koy xam man maa ko war a xam samay nit waruñu koo xam man maa ko war a xam man ngay bëreel. PPK yaa may dégg gars yi tàmm nañu communication bi ci la tegeel. combat bi sama bakkan laay teg combat bi sama combat entraîné naa ba sonn yanu naa ay poto lampe lépp mais affaire bi du loolu. dafa war def fulaak faayda ma def fulaak faayda ñu bëre xeex incha allahu rabi ñuy ñaan suñu borom defal ñu ndam ci barke Cheikh Nassar Sarr incha allah. alors yéen ñaar dañ leen di xaar ci loolu nga wax booy ñor. mais Malick parce que ñu bëri. lamb ji bëri na mystique de. waaw bëri na mystique mais bagaay ñu bëri dañuy wax ne la dëgër xaar sa borom ndax la. ba combat explosif boobu est que mën ngeen bi bañ a yàq bari xeex neex bu nekk li nga wax ci signature bi boo ñëwee nga def. offensive. ayca waaw mooy yoon sax. parce que boo xoolee ci signature bi ak communication bi da ngay gis ni Lac de Guiers dafa guuxal Boy Niang da ngay gis ni Boy Niang dafa kon ci jour ba moom dañ ko gëm nekk ci ginnaawam par rapport ak ñu ma seetaan gis naa ne ñëpp ñu ngi ci ginnaawam xanaa wala ñu bëgg mu nekk jour ba mu ñëw di def gauche droite dafa war a ñëw rek ñu flag fight incha allah. yéen Lat looy tontu ci loolu looy tontu ci mbokk yi xibaar yi ak suñu réalisateur am analyse boo xamante ni moom la defal a ngi nattante de e eh, mbasa mbasa ñu bàyyi suñu réalisateur mu am analyse bu munul tegal ay technicien ñu xool ko doog a dellu si waat réalisateur technicien yu addu jëmale ñuy tàggoo booy ñaar. waaw père dañoo war a bëri sax parce que loolu la gars yi di xaar fi ñun. parce que yi a dàq a làmb. mais dañoo war a bëri de dañoo war a bëri xeer loolu mooy yoon moom la gars yi di xaar yu bëri xeex parce que gars yi ñu lay xaar parce que làmb dafa neex te combat bi ñëpp dañ koy xaar ndax waa ñu ngi sama ginnaaw ak suma ay mbokk damay ñëw def flag fight incha allah. naa bu baax a doon. moom xam na loolu. waaw combat bu neex doon. Uh-huh. waaw kon yaakaar naa ni mbokk yi drapeau maire Guédiawaye Aliou Sall Boy Niang ak Lac de Guiers war koo bëre Baye Ndiaye. benn gars. waaw comme kàddu moo bëgg a la ko. waaw ayca. mooy dafa am monument boo xamante dafa jóge biir géej waay. waaw muy suñu papa uh-huh. ma koy jàllale waa kër bu baax baax baax. parce que xam nga la moo tax. Euh, dem naa fa. waaw naa. parce que dafa nekk koo xamante ne monument la woon ci làmb. waaw la woon biir géej waay. di ko ñaanal waa këram. képp koo xamante ne yaa ngi ñaanal Lac de Guiers numéro 2 muy waa Tivaouane. di waa Touba di waa Kaolack di Chérif ak ku mënta doon ah Ndiassane laayee ni bàyyiwuma kenn képp kuy ñaan rek dama ñaanal ñaan ñii mooy sama yaay Moussa Koudiour ak sama papa Mor Fadam ak bépp mboolem jullit bi nga xamante ne moom fi tëdd maa ngi leen di jaale baax a baax di ko jaale waa géej waay yëpp ak axul lamb waaw. yal na leen yaakaar naa ne. yàlla may leen tal. yàlla may leen fekkee kenn ku ci nekk nekk à 100 pour cent voire à 200 pour cent de ses li leen di ñaaxee rek mooy ki leen tëgg seen génération la bokk. dafa jël alalam investir ko ci ay ndaw yu nga xam ne dañuy bay seen waar ci wàllu làmb ba ñu ràññee leen ci.